jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di la wax na nag tey ñoo ngi ci émission mag bi nga xamante su mu nee nag mbokk yi xel dem ci supporter waaye bu mu nee xel yi dem ci ñaari mbër yi ñoo dugg ci digg géew bi di jëflante comme ni mu leen koy waxee chaque jour rek Wassare moom xàmmewuñ mbër mu mag xàmmewuñ mbër mu ndaw képp koo xamante ne da ngay takk ngemb rek bokk ci làmb euh, defe naa ne yow lañ fi nekkal ba tax na tey ma dalal fi ñaar ñoo xamante ni mën naa ne ay ndaanaan lañ ay champion lañ ndax yàgg nañoo bëree mais mbokk yi li ci li ci li ci gën a doy waar li ci li nga xamante ni moom ma ci gën a impressionné bokk na ci ay mbër yoo xamante ni ku ci nekk toll nga ci cent quinze kilos ba cent vingt kilos ah boobaak léegi ngay entraîné di denc di entraîné di toog di xaar boobaak léegi ko am combat ci ñoo xamante ni làmb la ñu yaakaar ci loo xamante ni seen àdduna yëpp dañ koo jël sacrifié ko dugal seen bopp ci làmb bàyyi lépp ndax làmb mënagoo ñoo am combat ñaar ñi mu fi dalee ñoom ñaar ñëpp tey kenn bëreegu ci bëre dóor mën naa su ma wax palmarès dama naan la euh, palmarès nan lañ koy waxee. san verdict zéro dégg nga nee na zéro tey nag maa ngi fi dalal ki nga xamante ni mooy Molde ak ki nga xamante ni mooy Abdou Diouf Abdou juuf moo ngi nekk fi nga xamante ni mooy euh, Bawol Mbooloo de Bawol Mbooloo Molde moo ngi nekk fi nga xamante ni mooy Lansar ci ñoom ci ñoom ci ñoom ci ñoom Siteu ñoom abu Ndiassé ah ak ñoom euh, kii ba Garga de Maama Lamine mbokk yi fa la nekk ñoom ñaatee ma dalal leen fi bëgg waxtaan ak ñoom. fi ñu jot a jaar bëgg waxtaan nañu li nga xamante ni moo nekk seen kanam ndax su ma leen gisee nii ñu toogee nii sax sama yaram day xaw a daw ndax su ma gisee ñu jël ay comédiens di leen bariloo di jël ñenn ñi di leen bëriloo te ñoom ñu entraîné bu ku leen ku ci gis kenn doo laajte kan mooy mbër mi ndax euh, macha allah seen dayoog ak boo gisee li ñuy def ci ma daal man am na lu ma jot a xam ci ñoom ma bàyyi leen ñu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi Abdou Diouf nuyu naa la. waaw auzu billaahi nuyu. waa di nuyu ñu fi teew mhm. di nuyu sama doom nday Tafaleer. Mhm. Giri ah, di nuyu fi ma jógee. HLM 6 di nuyu waa Waalo yëpp. Mhm. ma kenn waaw tund Waalo yëpp maa leen di nuyu ma kenn. waaw di nuyu sama papa Ousmane Boy moom laa nekk këram. maa ngi nuyu baax. waaw di ñaan jàmm Sénégal yàlla fi jàmm yàgg. waaw. doo jàll bu mu Mauritanie dellusiwaat. waaw ak waa Mauritanie waaw waa Mauritanie moom euh, maa leen nuyu bu baax quoi waaw ndax ñoom wax dëgg yàlla combat yi may bëree combat mbapat yi may bëree. Mhm. dan may defal lu ne. di mhm. kuddi seen xaalis di ma ko yónnee. waaw di kuddi seen xaalis di ma ko mais surtout surtout surtout euh, tant Seynabou. Mhm. waaw bi ma nekkee Mauritanie këram laa nekkoon. waaw dama daa dem këram sax ngoon fa laa daan lekkee ceebu ngoon njogonal yooyu affaire yooyu. mbéy ku leen jox lekk daal moom. da lay fonk nii la téye nii. waaw waaw <laughs> waaw euh, daanaka sax lii ni moom moo ko waral. Mm-hmm. waaw moom macha allah maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax sama cousin yi nekk foofu. maa leen nuyu bu baax ak sama frère yi nekk foof ak sama yaay yi nekk foofu sama tante yi nekk foofu Mourtane. Mm-hmm. waaw ñoom maa leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax. waaw di leen wax nañ jàpp rek incha allah. di ko nuyu bu baax a baax moom taan Zeynab euh, di ko wax ne kontaan naa ci moom moom bu ma ko nuyoo rek li ci des yëpp dina xam ni ma ko defee ndax moom bokk na ci man lu ci bari daf may woo daf may envoyé message daf may encourage lu bëri da ciy jàpp ci man daal kontaan naa ci moom bu baax a baax moom nuyu naa la. waaw ah, maa ngi lay fay bu baax. Mm-hmm. bismillaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mm-hmm. euh, maa ngi nuyu ñëpp maa ngi lay nuyu mi yow mi ak ñu fi tey ñëpp maa ngi nuyu ñëpp ak sama mafia bi fu ma jógee jàmm waaye ma kenn bu ma limee rek damay juum ak sama waa dëkk fatik Jaxaaw waaye ma kenn daal maa ngi nuyu ñëpp. Euh, yaa ngi nuyu ñëpp euh, mbokk yi comme ni mu leen ko waxee sànq ci commencement bi ay xale la ñoo xamante ni làmb la ñu yaakaar mool kañ nga commencé dégg maanaam mool Abdou Diouf kañ nga commencé bëre. waaw man euh, bi may bërëntu boobu maa ngi def euh, maa ngi jàng quoi. Hmm. maa ngi jàng nekk euh, di def sixième. Hmm. Richard-Toll boobu école yi dañ daan organiser ay inter école quoi. Hmm. ñu organiser inter école yàlla def su ma demee rek ma jël ko su ma demee ma jël ko mais paa bëgguloon ma bëre. commencement bi waaw bëggu bëgg ko woon ba léegi. nii lamb nag ñi ciy dugg seen i parents nangu bàyyiwul de. waaw waaw bëgguloon saa yoo ma demee rek jël ko xama ba yàlla def na foofu mosuma fa daanu mbapat. Mm-hmm. waaw may may dem di dem dem bay gars yi organiser drapeau chef de l'État 2015. avant drapeau chef de l'État bi 2014 semaine de la jeunesse gars yi sélectionné ma yóbbu ma Saint-Louis. Mm-hmm. ñu def ñu def semaine de la jeunesse. waaw affaire bi topp daal foofu la foofu la ma toppee ba léegi nii. foofu daal nga xamee ne. ndeke man mi mën naa nekk mbër. waaw mais diggante diggante diggante Château Waalo. ak ku ne xam ne ne làmb moom dafa mel ni base bu dakaar la nekk. Euh, lan moo lan moo lan moo la motiver nga mën a jóge waalo ñëw dakaar bu bëre si. ndax man euh, foofu euh, boo xoolee waalo. Mhm. dañuy tëgg dañuy nommé ay combat mais combat yi du nekk bëri dóor parce que promoteur ba amul licence dóor. Mhm. waaw mhm. naa fa seize combats. seize combats benn défaite laa am Jackson moom daan. Jackson man meen. nekk Guédiawaye waaw. waaw ah, moom tamit waalo la dëkk. waaw moomu daan foofu. léegi xam nga saa yu ma saa ma amee combat ma bëree daan rek après gars yi di ñëw si paa bi wax ak moom fekk paa bi bëggul mhm. après loolu la gars yi def nag ba convaincre paa paa bi ne ma léegi daf may bàyyi ma ñëw Dakar 2015 laa bàyyi jàng ma bàyyi jàng ñëw Dakar nekk si Birahim Ndiaye. Père Birahim Ndiaye bu baax a baax. waaw maa bu baax ak waa équipe bi yëpp équipe Birahim Ndiaye yëpp. Mhm. dëgg yàlla ay borom baax ñoo fa nekk. waaw maa leen nuyu ñoom ñëpp après bi ma ñëwee ma nekk HLM Mhm. avant ah. di dem foofu si Birame Ndiaye di entraîner chaque jour xam nga di entraîner chaque jour mënoo am combat loolu dafa metti dafa metti si ñun ay mbëri ndaw la ay mais mais mais mais ci yow la woon wala ci manager bi wala boog dañ la téye woon ne liggéey ba ci kanam. waa xam nga euh, nekkul si man ndax man maa doon def li ma war a def chaque jour maa ngi entraîné waaw man naa am nag si équipe bi la woon parce que équipe bi père boo mosaan wax da wax boo mosaan wax da wax entraîné leen ba si kanam entraîné leen combat dana ñëw. xëy na yàlla moo dogalagul suñu combat. Hmm. waaw xëy na yàlla moo dogalagul suñu combat arène. mais wax dëgg yàlla nag jot na am combat arène parce que champion yi di bëri fi yëpp arène bi. Hmm. am na si ñoo xam ne laale nañu am na si ay champion yoo xam ne ñii arène bi laale nañu. Hmm. tegal foofu sa loxo dinaa ñëw parce que defe naa ne bi nga jógee ci PBA am Ndiaye ci nga dem équipe Bawol. fekk ñoom tafaatin xaw ma nag la moo loolu nga dem foofu tegal foofu sa loxo ma ñëw. Euh, kañ nga kañ nga commencé bërantu. man ma commencé bërantu. ay deux mille ay deux mille dix yooyu la. deux mille dix ba léegi deux mille dix waaw. Uh-huh. loolu yàgg na ci mbapat yi di bari ay saaku ceeb koy yëg ci kaw waaw. mbapat lan nga ci lan nga ci gagné lan nga ci amagum. mbapat am naa ci tuuti de. am nga ci tuuti. waaye am naa ci ay nag waaw. ay nag waaw ah, loolu nag bokk na ci li ma gën a bëgg ay nag ay xar. waaw am naa ko ci moom. <laughs> lan nga doon bëre mbapatu nommé wala wala wala wala wala tournoi nga doon def. non loolu tournoi la we tournoi lay doon. ay tournoi lay doon dañuy tëgg waaw. ay mbër yu bëri fan nga ko doon bëree Dakar fii wala. non non Jaxaaw. Jaxaaw Jaxaaw waaw Siin Siin waaw. Fatick Fatick. waaw kañ nga kañ nga kañ nga jóge foofu ñëw Dakar pour def euh, pour ñëw fii concentré parce que ku ne xam na ne làmb ji moom fi la wulee ñaay moom. waaw waaw at bee paase rek laa fi ñëw. yàgguguloo fi. non yàgguma fi. lan moo man damaa toppoon mbapat bi rek di mbapat di dem. ña ñan ñoo la bàyyil mbapat bi mbapat bi doy na. non damaa xam ne damaa war damaa dama xaw a mel ni ku xaw a xaw a. damaa xaw a war a dugg ci combat yi. micro bi. damaa war a dugg ci combat yi damaa a dugg ci arène bi. da gis ne daal mbaa di fi mu toll nii doy na sëkk. doy na sëkk waa waaye damaa war a sax woon sama bopp ci arène bi. mais ji daa ay compagne amul sëgg Leewtoo si fii xaw a kaw yooyu amu ci de. non non man ragaluma lool man brodeur lay def mbappatu brodeur. mbappatu brodeur ay sambar ay sambar. Hmm. ngay dem ba final ba jël ko. xam nga kooku benn combat jaaxalu ko. kon jàpp nga ne daal la nga la ngay daj foofu moo gën a metti kan moo gën a métti waaw ndax lii benn combat rek lay doon nga bëri ko mu jeex. Hmm. waaye léegi da ngay bëri sans nga bëri ba final nga loolu métti na de. nga nga nga jógee lan sax ànd ak mbër ànd ko mu bëri si. boo gisee ni ñuy lewaatoo ak boo yi bëri sa xel mi ci lan lay nekk. ah xanaa ku ne ku ne rek ak nu muy bëree. waaye man moom bu ma signé combat bu war a bëre naa xam nu may bëre. non maanaam boo ñëwee ci bi gis booy ñu bëre doo doo doo bëgg am ngem sax dugg ci digg géew bi jëflanteeg booy yi. sama yaram day laaj ma gisee booy yi di bëri nii sama la yaram mooy laaj. Hmm. waaw. Euh, nga ñëw amaguloo combat kii tamit jóge waalo ñëw amagul combat nga jóge Sine ñëw amagul leen combat te boo xoolee taay yi tolloo na ah poids bi tamit xaw na neexoo kii buñ la ko joxoon ab Diouf mi buñ la ko joxoon ñeme nga ko jël ci tafaati na ne man amul mbor mbor buy tàkk ngemb ma ragal ko amul ñu ma jox ma bëre. ñeme ngaa jël avance kii. signé ko tey dëgg ko tey <laughs> amuñu lu ñu tiit. buñ ko signé woon nga yóbbaale avance am. léegi léegi léegi léegi. Abdou Diouf. <laughs> dégg nga man bëre rek laa bëgg a def. Ah? yaramam daa tàng. yaramam daa tàng non kii maa gën a xasan yaram sama yaram fu mu ne nii man bëri laa bëgg bëri rek. ah. xamee woo jànj xamee woo joor. billaahi ma jànj xamee ma laa bëgg. mais bu la joxoon avance mool mi mool mi nag dafa mel ni toj na de mool mi ma gis nii. mool nekk fi di lewaatoo di di. di naan mool gën a toj. ci li nga yaakaar. mool maa ko gën a toj. ci li nga yaakaar. yow bëri simple ngay def de man ay ko ko ci bët. waaw wax nga dëgg ci gémmiñ dañ maa dóor ba ma. mooy loolu la dëgg yow yow yow li simple ngay def. yow bëree goo ah, bëree moom def dem na mais kii bi su suñu combat du taxaw xeex ak man. non déedéet yow kii yaa xeex ci àll. waaw waaw waaw li ngay wax amul dara. ñun kaay xeex moo ñu gën a kaay kii bi suñu combat taxawoon tey du xeex ak man day yooru. li nga yaakaar. moom moom man du ma man du ma ragal. amul lu ma ragal moom nga xam ne du ma ragal. waaw combat bi taxaw léegi. waaw na taxaw ñu may ko léegi non fi moom mën na ko fi maye. daa tàng de. <laughs> mooy loolu. sa yaram dafa tàng fi tool yi. tàng na jër yaakamtee xeex la. Euh, dafa ndànk rek. waaw bu jotee rek dinañ mais moom la dafa xiif combat. moom dafa moom nii ni mu ko gisee. mooy loolu moom damaa xiif instant bi. ay kurpeñ damaa nam ay kurpeñ. da nga bëgg wane sa bopp. parce que nag boo xoolee booy dañ ci gis koo xamante ne danaa man bi may bëree. dañoo yokk sama âge wala boog sama âge matul mais ku leen gis xam na depuis 2010 ba léegi presque 12 ans nga nekk ko di ba mbapat di ba mbapat boobaak léegi xëy na peut être boo duggoon ci làmb surtout yegg na fenn fi wala dégg nañ la fenn fi nga doo dugg si làmb boo dugg see ci làmb moom da war a ñëw rek prouver euh, moom waru ci ci yéen ñaar kenn kenn kenn kenn xaw ma nag yéen ñaar yéen ñu bëri wala boo ku ci nekk dañ koy xoolaatal keneen ku mais xam naa ne moom combat bi ku tëgg mbokk yi bu neex ndax ñoom ñaar tolloo nañu da nga koy jël pousse ko ci combat yi mu mat. waaw entraînement yi naka ngeen koy defee. waaw entraînement yi moom yàlla def moom chaque jour ñu ngi si man moom chaque jour damay entraîné saa yi ma wàccee lu mu guddi guddi damay dem entraînement chaque jour ñu ngi si entraînement yi waaw xam nga di entraîné chaque jour te mënoo am combat loolu dafa métti. Mhm. waaw koor gi saa yu ñu dogee ñuy géej physique contact loolu la ñuy waaw saa yu combat la ñu bëgg moom. Hmm. Mhm. entraînement yi. entraînement yi ñu ngi ci kawam bu ñu doogee nii dañoo dem géej di entraîner. mais mbay nag yéen bëgg lu yomb de yéen fi mu lekk ba pare doog mën a entraîner. ngoon gi ngeen dem. man man moom a xëy di dem entraînement man dama entraîner ngoon guddi jotee ma dem géej mais instant yi sama liggéey moom ko mayul quoi. ok waaw instant bi suñu coach de passage maa ngi nuyuwaat sama coach Max. Colobane mm. waaw daf ñuy teg lu métti. waaw nu mu mënti am combat bu ñu mënti am daf ñuy teg lu métti moom du la may dara waaw maa ngi koy nuyu bu baax ak sama gars yi foofu mafia bi ay ñoom tonnerre numéro 2 Ndiaye Tine euh, Mor Kankan waaw mafia boobu ay caw cawe Sarr ñooñu dañ may woo di ma teg si code. Mm-hmm. waaw ñoom xam xëy na ñoom dañu mënul tëgg combat mais bu ñu mënoon tëgg combat bëri ko naaw yàgg. waaw bëri ko naaw yàgg ñoom maa leen ñaanal lépp lu ñu bëgg a xama yàlla defal leen ko ñoom ay borom baax mm-hmm. waaw Max daf ñu daan woo ngoon gi instant bi sax gars yi fi ngoon gi daf ñuy woo ngoon gi ñu ñu ñu entraîné bu ñu toogee après dem géej dem dem géej. waaw man instant bi suma sama sama job moom moom mooy dem ngoon gi quoi mais guddi gi moom ñu entraîné. jaajëf waaw. wàllum entraînement yi fan nga ci tool. entraînement yi daal bu ma dogoo ba pare damay dem entraînement. Mm-hmm. damay physique damay contact. waaw. yaa ngi dem saal. waaw maa dem saal waaw. Mm. waaw. fi mu toll lan ngay lan ngay lan ngay lancé lan ngay lancé appel pour promoteurs yi ak ñi nga xamante ni ñooy bëggee mool. nañ naka lañ koy waajee pour mën na xaar boo dugg see ci làmb ak la nga wax promoteur yi nga xam te ñooy tëgg talal loxo rek di leen di leen naan ku gis face à face bi na tëgg combat bi ndax lii combat la. musu waaye dafa mel ni bëgg nag de. bëgg naa ko waaw. bëgg nga ko bëgg naa ko waaw. lan moo tax ko. non sama naataango la dañoo war a bëri moom. xool nga ko daal xam gis naa ko bu baax jëflanteeg moom dina. gis naa ko bu baax. te jàpp nga ne mën nga ko daal ma lool. jàpp nga ne mën nga ko daal. waaye ku dul moom sax pour dul moom mun naa kaa daan. mais kii nag ñoom Tapha Tine la ne de. loolu mu ci xaw a jaaxal. ragaluñ lool man Siteu moom mooy entraîné Siteu ak Mama Lamine Tidiane Faye. kon seen waa écurie bu ñu ràññee fii ma daan leen. bon bu ñu ràññee fii ma daan leen. non non loolu da ngay wax rek da ngay wax loolu neex rek yow kay jël ma ba pare rek. ngeen ma rek. <laughs> da ngay wax loolu neex rek. waroon ma yow nañ ko signé laa la wax. man moom laa gën nañ ko signé combat bi day taxaw incha allah. combat bu taxaw nga xam ne lépp dëgg la. nga gis lu métti leer laa la wax nga bandi a ngi nappante ci biir ba li doon nag yéen a biir ba di xoolante. pourtant nag xoolal yéen koy café nii mais lu mën a nekk la. combat bi lu mën a nekk la. daa war a nekk sax. day daaw ne parce que moom bëreegul man waaw defe naa ne négociation bi du du du du mais man seen équipe su ma amoon Abou Ndiassé nag moo ma gën a Ndiassé daal di si yow. waaw yaa ba pare. Ndiass Ndiass kay daal di. daal di si yow daal di si yow daal di si yow. Abou Ndiassé mafia rek. mbër mënul di si man. wallaahi mbër mënul di si man. jaara ba pare rek kooku daal di si yow. tey nga mool xool ba xam. mool mooy loolu. sax xam yomb na teel micro bi ma ne mool méttiwul saraxam yomb na. Euh. waaw da ngay génne benn bëy ak ay quelque kii rek guróog tànnam. <laughs> mool méttiwul ah, jël mool ba xam. mu essayé mool ba xam de. da ko essayé ba xam rek. da ko essayé. gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo. Euh, comme ni ma koy waxee chaque jour rek wasaare xàmmeel mbër bu mag xàmmeel mbër ndaw mais nag des fois affaire dafa am yoon. dem tam faatu jékki-jékki ak na ma diw woo na ma diw woo na ma defal naa nga defal naa nga na ko teg ci code jaww maa xool <laughs> xam nga bu baax li may wax soo amoon kàddu yu mujj lan lay doon. <coughs> waaw xanaa di di rek di gërëmaat. Hmm. surtout sama waa dëkk. Ndombo. waaw ma nga ba waalo Ndombo Ndombo naana Ndombo jàmm gën Ndombo Diop xam cago hmm. waa Njaxaay jagle saneen xam Saint-Louis gaaya bokkal ñëpp maa leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di wax seen doom xama mi ngi seen ginnaaw ngeen ñaanal bu baax ak waa Richard Toll. Hmm. waa Jaksaaw Caaba ñëpp di nuyu ñëpp bàyyi ma kenn waaw di di wax euh, xama sama mafia bi foofu Père Madiaye maa ngi koy nuyu bu baax moom moo ma jàngal bëre. Hmm. ak Boulon. bulon moog Balla Gaye bëri woon nañu. bulon ñoom ñoo ma jàngal bëri maa koy nuyu baax a baax waaw ñoom ñoo ma jàngal bëri. Mm. ay Baye Zo Malick Balla Pépinière xam nga gars yi yëpp ñoom ñoo jàngal bëri quoi daanaka man fi ma jàngee bëri maa fa gënoon nekk xale. Mm-hmm. ay Garga ay Sa Thiès maa leen di nuyu bu baax a baax Ibou Laye waaw sama xarit su ma amee si sonn lu ne la si daj. ak sama mm-hmm. benn frère boo xam fu ma su ma amee moom moo koy waxaale ñu koy wax Doudou Mbodj. Mm-hmm. moom it maa ngi koy ñaanal bu baax xam nga di nga wax li nga daloon temps yii passé nattu la xama nga nattu fu ne lay jógee waaw di ko di ko ñaanal bu baax a baax baax baax lépp lu mu bëgg yàlla defal ko si barke si naam xam ak sama benn grand bu ñuy wax Sidé daa xaw a tawat daf jàppale. waaw di di ñaan yàlla fëgg boppam. waaw di nuyu benn rak ñu koy wax Ousse mi asilem waaw xale boobu ñaw rek lay def war nga ñëw mu boole ak mu ñawal la. incha allah macha allah moom ku mu ñawul instant yi sa ñaw waaw sama rakk ak sama patron maa ngi koy nuyu ñu koy wax Omar mhm. di nuyu sama benn copain bu ñuy wax Dembis. waaw Azou Noble gars yi bàyyi ma kenn suñu waa kër surtout suñu waa kër maa ngi nuyu bu baax sama mag yu jigéen ñi ak sama rakk yu jigéen ak sama mag yu góor ak sama rakk yu jigéen ñi waaw sama mafia bi lëmbal. waaw suma zóor yi nekk foofu maa ngi di ñaanal sama pro yi ñoom rëboo xam nga malaa boo yëpp maa ngi ñaanal ñëpp HLM gi yëpp 1 ba 6 waagu waaw waa waalo nag di leen wax xam a ngeen ñaanal seen doom bu baax surtout yéen waa ndombo waaw ñaanal leen bu baax a baax a baax gis nga foofu mu daanale fu laa duggee ndax defe naa ne maa moom ñu bokk dëkk maa ngi nuyu waa di nuyu waa Mbilor waa Mbay ah, waa Dagana. waa richard ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu. di jël nuyoo di ko teg ci euh, loxo Pape Omar mu séddale ma ko waa Waalo gépp di wax ne nag ñaanal ñaanal leen ñu ñëpp seen i doom lañu. Euh, Mool soo amoon yu mujj lan lay doon. xanaa ñu santaat bu baax a baax. bu maa ngi nuyu waa mafia bi yëpp sama mafia bi 78 bi sama groupe Moldo. sama dëkk ñi ñima ñi àndal ni ñoo pàkkonte ñoom Maodo ñoom Cheikh mm-hmm. uh, sama waa samawa dëkk ñoom Malick yu jibi ñoom Souley Ndiaye mm-hmm. ñoom Ndiaw ñoom Waly ñoom Abdou ñoom Abdou Karim waa Moon mm-hmm. Jaxaw Fatick monde entier bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn kenn kenn a fiyangaan um layel a seereer yitam maxey gidma o fog me genuma o moon sama fierté jaxaaw Fatick fop wa Sim o limanga rek kam juum ka a fiyangaan maxey tala laadin o ɓayiid layaa den o ɓiy nuun o ndeɓ nuun xarit nuun sak wa ñaan nu ñaananaam oyo ret bo jal roi des arènes atidin mon i mbiyete wiinoyo roog a waagan yaam ta fi'an na in vraiment xeefiim o leŋ xeefiim o leŋ euh, Aliou Diagne ten itam wajkinum to maag ino paax ref i a lool wa moon moon ke fop moon naxik ke fop moon qal moon Sidiya moon Babo fop waagim o weca den me refuma jama gen xa booy xe sonanami trop encore mm-hmm. vraiment den itam maxey sant a den gidma den jegim ndabid den ñanana rok paramta den tabid ne mo ñat tabid ke vraiment jega mo doya paax i kontaan naa paax yow itam yow itam maa ngi lay gërëm bu baax maa ngi lay sant mm. ak sama caméraman yi ak ñi toog ci plateau bi yëpp bàyyiwuma kenn gis ngeen mbokk yi noonu lañ demee waa Mauritanie waaw waaw waa Mauritanie ñoom mention spéciale am seen fay wax dëgg yàlla dañuy cotiser seen xaalis di ma yónnee mm-hmm. waaw ñoom à tout moment ñu ngi ñu ngi may gëstu di ma laaj si loo waaw Giri maa ngi lay nuyu caatuwaalo yéen ñëpp bàyyiwuma kenn maa leen nuyu bu baax a baax a baax di xam di leen wax ngeen jàpp sama waa groupe nag sama morom yi ay sa baax waaw di leen wax ngeen góorgóorlu bu baax ñoom xam nga su ma amee foofu combat une semaine. Hmm. xam nga dañuy nekk di ket ak booy yi foofu dëkk ba xam nga booy yi ndaw ndawaan yeeg ñëpp bàyyiwuma kenn waaw waa Mauritanie yéen mooy loolu waaw. gis ngeen mbokk yi da nga am loo fàtte yow. yow boobu nag itam simna dina baax boobu nag gën minwagade inoxoyo ku doma xama doma den vraiment den itam ay adama lum modu lum jaga euh, waali adama wad euh, fop wasimo leŋ vraiment nun itam jegim dabid nun daal jegim dabid nun yaam roga rab dana xama nuun gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo di leen jox dig daje di leen jaajëfal bu baax a baax Adama Diaw ca waalo maa ngi lay nuyu bu baax a baax yow sama waay nga <laughs> des fois maa lay sonal jël ma jëndal ma xar xoolal ma xar bi kontaan naa ci yow bu baax a baax di nuyu ñëpp di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen ba jaa ngeen jëf